ne ajartu daba booy xam-xam gi bari lool mu laaj la xaalis hmm. pour ñaan seen diggante baaxaat waa ji topp la waa ji dellu sawaat may la semaine tegaat ko fam ko tegoon rek yow rek laay xaar foo bëgg ñu dem nga xool bëgg ga xool téye ba bu mémoire bi baaxul xooloo la sa ndey daj ca gannaaw hmm. tëdd rek ngay def parce que léegi dañuy daf leen diggante yi daf leen di jaral te du sëy waaw diggante yi da leen di jaral ba pare mhm. bëgg nga day sori lool ñu di mhm. ca ñaanlu mhm. di ca def ay sarax di ca def lépp takk seen sër ba mu dëgër bañ nag ba sonn waaye bañ bi semaine lay yam su dee weer ëpp na su dee trois mois ëpp na waaye nag bu ñu demaatee ba jàkkaarloo xale ba day nangu sëy bu fi tas tey looloo ko tas góor ñi yërëmatuñu benn xale nag xale yi kenn amatul ndaw ñu bare ngi fi takk ay nit di leen sagal sàng leen ba daanu sutura bu bruit bi jógee dañ leen di romb dem ca yeneen i xale nag tëdduñu te it réew mi daa tas xale yi dañuy fabriquer ndaw dem nañ ba dañ leen di ñaw sax pour ñuy xat ngir di fabriquer ndaw waaye góor day xam lan mooy ndaw ci xale su yegsee kamu xam ak ki xat ak ki xatu xale bu góor da koy xam ndax man daf ma koy wax tiim naa sama jabar xam naa ne du jànq li ma ko may bari na maa ngi koy xaar diiru un an deux ans dinaa ko may riit bu ma juralee juróomi doom dinaa ko fase ndax man damay wër ndaw ci jigéen te ma mu am ndaw xat na nag da koo fabriqué ndax réew mi nasaraan bi da cee dugg tey xale yi da leen a jaral de seen fanweeri junni lañ yor seen cinq cent mille seen deux cent mille extérieur nga sori danañ ko teg ci base dinañ ñaw ba xat jommi waaye nag <laughs> lu dagg ak lu ñu tappale ku ne xam na ko te damay toog ak ay kilifa loolu ñu di ko ñaxtu bay am naqaru xool hmm. naan su ma gessoo ci lal bi seen ko duma ko bëgg gis ndax keneen jiitu na ma ca ah te it may naa ko ay millions jox naa ko ay 4-4 takkal naa ko ay or sama xol dafa jeex taat moo tax import importance su téye sa bopp. téye sa bopp loolooy importance bi uh-huh. loolooy valeur loolu loolooy qualité bi ndax góor da koy xool ci nit hmm. léeg-léeg jëkkër xool la ba bëgg laa jéggi jees su xool ne moom rek moo la xam mu hmm. daw ba bëgg terrain ji hmm. taal otoom ba mu nekk ko baa mu dox tànkam xel ma dellu siwaat mu tourné waat xam ne yow mii rek yaa ko muñal hmm. mu toog ñëw bala mu naroon def a cause de la nga xaar ak ndaw gi nga ko jox ndaw valeur la ci jigéen xale yi dañ koo bagarde sandis sax ñu tëdd sandis bi ñu tëdd weccit bu sew ñu tëdd kaat kaat ñu tëdd ligne de mairie xale dañ koy def dem ñëwaat tëdd ba roode ñëw toog ci biir réew mi ñu ngi toj dëkk bi te naan la bu bal tàkk fital du jóg bu ma kenn dégg bu ma kenn yëg ak booleeg di la takk nag ci sëriñ xam nga gàllaaj am na waaye di nga takk mbër mu toj su tojee génn ba day bëri bàyyi xale yi fi ñibbi seen kër ndey yëpp la cay ñuul bu la ko waaja waxoon nga jommi amuñu ndaw roode nañ ca roode jeex. roode dañuy roode. roode nañ ba roode jeex gis nañ góor bu ne dugg nañ fu ne. ñun dañoo ñoo sokke ñoo raw te ñoo gën ñu ci émission bi yëpp ñoo koy wax waaye tey dañoo tey dañoo ñoo xam ne ay borom voleur lañ fii ci dëkk bi dañoo bëgg ndaw. ñoom ndaw ci boppam da leen di daaneel danoo bëgg ndaw te boo dee jigéenu ndaw jaral lu ne lu tax ñu di ci teg male. lu tax ñu di ci lu tax ñu di la jox ca mm. euh, loo xam ne sa yaay bu génnee bég say mm. bàjjen bég famille bég bég loolu lu koy waral mooy gars yi dañoo bëgg ndaw nag waaye xale yi dinañ la tàggu ne la maa ngi seeti ji sama yaay wala maa ngi dem kees maa ngi ñëw dara jee yonent bi ñu ngi ci diggante mbuur gi ak Maroc France dañ koy def ñetti fan duggaat ci dëkk bi boolew ñu dara ak wax suñu ñëwee dañ lay liggéey ba nga ne ngodd ba pare yamatuñ ci de valeur boo leen laaj duñ la ko jox ak booleeg di la may riir xale yii ma gis léegi war tuñu jom sa yaay de bu sonnee ci sa kër baay daj fa keteme mm. macc fa kaani macc fa lingom mm. ngay doomi gor di doomi nit ku baax soo gëstoo war ngaa wuti ji ndaw mm. ndax boo tëddee day bég te day kontaan say famille baay ñëw taxaw mu siggi ay famem ñëw taxaw mu siggi koñ bi génn dëkkandoo yi génn xat yi génn mu siggi waaye xale yi si li tuñ kenn xam nga lu tax concours 4x4 bi ci réew mi toj na àdduna. te lu koy joxe. xam nga lu koy joxe tegante bët yi kii da lay ëpp wërsëg. gën laa rafet lool gën laa jekk yam. nga wëlbati ku ne kii gënuma fi mu jaar ba am lii dama koy am soo xamul circuit bi xamoo yoon bi da ngay taxaw ci tali bi. mbir mi yoon la man ngay sangu ba set di diwu seet sa ku mel ni ajar tudd ba booy sa yaram saf-saf ñu di la may tëddoo tëdd. Oh. ñi am ndaw a ngi fii ci réew mi de. am na fi mag yoo xam ne ba léegi ñu ngi toog ak seeni ndaw hmm. dara jey yonentu yàlla Muhammad ñu ngi xaar góor gu baax ak ku yàlla baaxal ak góor gu yiw daal di ko koy jox waaye nag góor ñi dinaa leen balaame tuuti ñoo war a dimbali xale yi hmm. ñoo war a dimbali jeunesse bi seen bopp yi amul dara xale yi amuñu cerveau bu nu la bëggee duñu xool du ñu dégg duñu gis hmm. yaa leen di gënal sax seen papa bàyyi seen bàyyi jàpp la moo gën ndax mbëggeel dafa sori ay sentiment la yu suway na ko situation rek la dégg nga dégg nga lii. waaw waaw. dégg nga Daba Boye. tey Daba Boye. waaw wax wax na dëgg de. dëgg rek la wax. ah. wax na dëgg. wax na dëgg. gis nga Baye Caafaas Caafaas xale bu tawul ndayam Caafaas Caafaas ah. waaye raw rek lay mujje Caafaas ñëwal Caafaas xat bi tase la ma saf Caafaas ah may mu na taabaana ngi Caafaas kon ba sinu kumbala sama doom jaa ngi nii Caafaas ñëwal waaye ah. nday gay kooku woto rek lay dawal ah kooku woto rek lay dawal waaw waaye sax rek lay doxee Mbaye Dieye or rek takk. waaw waaye boo tewee sa ndey. waaw waaw ah, maam moom saay feeling. yaay maam moom saay rada. ñëwal. yaay ku ma neex lay teyal. akaay ah, man du kumbi dara ak Dieye. Ah, waaye maam ma seeni ndey. ñëwal dañu soow. waaye du sa morom. ah. waaye ndey gay moom ma day. doomi sosaan ji moo doy ñëwal waay sama doom jee waaw Mariane Sarara ko waaw ee eh, osa moo ko jur ñëwal Maymuna Saba nango ee eh, ah. jëkkër ma ngee toog Moodu Mbay gën ñee nii Maymuna Saba na ngi Pape Cheikh seen samaam Xalima Jaxate yi samaam yi samba borom suudu man yaa ma saf kaay xam nga kuy sa yaay ñëwal fa seenay sa yaay baam ee eh, xam kañ sa yaay ñëwal dama Jaxate moo la jur sama doom jàngi nii ay meeru takko jaam man yaa ma saf yii di samba borom suudu man yaa ma day ñëwal xam nga doo ko taw yaa mën seeni ndey ñëwal eew waaye sama doom jànga nii waaw biran yaa ma sax sëñ sëñ kew yaa yaa maa bay ma nga bay ma sëq ndey maa yoof ndax daawut du la jomal njarey sa maam ee eh, lay sama doom jàngi nii <laughs> mbay jeey daa sa yaay sama doom jàngi nii mbokk yaay mbay demba ndiiru man yaa ma sax waaw waaw xalaas caafaas oh. eh, oh. lan parce que dama koy tamit ci laabaan yi caafaas bëree xale su tawee ndeyam xale bu tawee ndeyam ah eewa njaay bi lii mooma sax xale bu tawee ndeyam Eh, kii rek lay bëgg. ah lii rek lay bëgg. Eh, kii rek <laughs> maam moom sayra daa. bu tewee ndeyam. waaw yaay booy bàyyi ma. góor gu ma neex laay waxal. dégg nga loolu. da doon Seex ah, bàyyi ma. waaw eh. maam moom say kii lii rek lay dëkkee. ndeysaan xool nga boo tawee sa ndey kaaj para para yi para para xool nga boo tawee sa ndey demal para para jërëjëf ndeysaan ndeysaan wallaay dafa neex. jox ko jox ko jox ko jox ko micro bi. ndeysaan. Uh-huh. lii. dafay tax xale am jom. Uh-huh. fi mu ne tey saal yu bari ñu ngi ñuy seetaan. billaahi. xale yu ndaw yi ñu naan seen yaay kii lu muy wax. dëgg ñu naan mais maire bi lu muy wax. maire bi lu muy wax. ndeysaan. am na ñoo xam ni ñu ngi tëdd seen rankoñ yaa ngi sotteeku. billaahi. ndax bëgg ñu defal leen laabaan. dëgg ba tey am na xale yoo xam ni dañu naan naa am jëkkër ba ñu laabaan ma. Mm-hmm. waaye tey boo demee am na ñoo xam ne tey ginnaaw waaye maire yee neex déggal ñi yu xew yi <laughs> yi nga xam ne kenn waxatu ko dundatu ñi moo tax gis nga Viviane mi tolloog ñoom jamono <laughs> euh, laa bëgg ñu tegal ma mu wax lu am solo par rapport ak euh, guddi gi ci wëndeelu euh, ñu doog a dellu siwaat Pape Samba waaye yow. may leen ma de baal leen ma rek baal leen ma rek baal leen ma rek baal leen ma rek. wax noo leen doon ci xew bi su nekk ni yéen a ngi ci préparation. man daal tur laa waaw waaye may bàjjanam yaay bàjjanam. waaw ñii ñooy ay ndeyam. may bàjjanam bokk ak baayam ndey ak baay. baayam ma naam jox ma ma naam. ma ba pare dina tëdd. te ñun xaj ñu ci gàcce. ñu neen de. mbaa d'accord na ne dina tëdd wóolu na boppam. Hmm. man ma ko am kersa sama digganteeg moom. ñun de tëdd fees benn la xam. ñun ñëpp moom la ñu ndax gà gàcc bu gàtt. moo gën xam ñun xaj ñu ci gàcce. anamu. ci suuf. Anta Mbaye. kaay. man de sax. mu ngoog defe naa message boobu am na solo li ñu bëgg rek euh, mooy euh, xale yi si seen waay jur yi c'est important El Hadj Man bay Garmi waaw euh, bay Cheikh tey thème bi dafa nekk thème bu am solo mm. boo xam ne bii Sénégal yi dégg nañ ci lu baree bari mm-hmm. mag ñi fàttaliku démb mm. xale yi dëgmal ci li nga xam ne moo leen war mm-hmm. te waree fu doom Baye Cheikh ci la ndey di siggi Viviane na ko léegi mm. Massiré Cissé ji Fatim Penda damel sa suka bi ngone ji Ami Fall la yaayam tudd waaw waaw mu nekk mu nekk nit ku yàlla baax day soxnaa ma ko woon Amadou Mbaye Garmi ne ma fekkal ma ko ci telle place waxal ma ko lu baax fekke naa tam ay tarangam ba tey mu jóg ci moom tàbbi ci suñu day ju baax jooju waaye Baye Cheikh nit ñi nañ delloo si xel yi te tàbbiwaat ci démb démb mooy raay bi soo ko wàccee rek wàcce nga raay bi mag ñi réglé nañu problème yëpp waaw waaw li leen war yëpp bi rek moo des nañu problème yëpp te nag li ñuy li ñuy dimbali. Mm-hmm. Mm-hmm. li ñuy dimbali. Mm-hmm. mooy ni seet li mag ngi nekkoon ñu nekk ci. mooy tax mag ñi nekk à mooy tax mag ñi siggi. mooy tax cër yooyu le mën a génnaat ci ñoom. ba bu ëllëgee ñu mën ko waxtaan dëgg kon nan dellu ci démb. Mamadou may waaw euh, Abdou. xoolal li yàlla defal góor. Mm. même mu teral góor. Mm. def ko góor. muy jébbale soxna yi. bu ko yàlla dogaloon nag tubaarkàlla macha allah mu jël place jigéen jox ko góor. kon plateau bii. ah ku xëy dana la jébbale. waaye yàlla dogal na. tubaarkàlla macha allah yàlla dafa def place góor. jël jigéen teg dee ne góor moo war a gide jigéen. dama daan dégg laabaat bu fajaree cuy ma lekk ca tufa ya seetaan mbalax ya. silat maa laay sol ak kilot waaye yàlla daal lim defal góor yàlla rek ko xam. moo tax xale yi tey kii wax na ko léegi. nee na dangay bëgg 4-4 bëgg greffage sëfa hmm. tubaarkàlla bëgg appartement bëgg jaaro or waaye yooyu yëpp yàlla dafa dogal wërsëg hmm. nit dana juddu judduwaale wërsëgam dajeeg Baye Cheikh Diallo mu yor ay millions. Hmm. mu may ko 10 millions. ne ko defal ñu koy wax am na nu koy waxee tax shopping. léeg-léeg mu dajeeg mbay gay fay mu may ko 10 millions ne ko defal shopping léeg-léeg mu dajeeg Mamadou Mbaye gar mi ne ko defal defal shopping mais dama booy nee na am na ñoo xamante ni sànni ma ñëw Pape Cheikh ma ñëw waaye nag na dem Louga ñu ngi gore ba tey baay mm-hmm. waaw ñëwal buñ jógee ci laabaan mm-hmm. ba yàlla jël góor maari day taal yi dafa ko place jigéen mm-hmm. kon tubaarkàlla ñetti sees yi ah, da da dana mel ni dëgg de. Mm-hmm. waaye yàlla dogal na. Mm-hmm. jigéen rek la la teg la teg place su muy tëdd. Mm-hmm. kon tubaarkàlla maas nañ dem Louga dellusiwaat ci laabaan ndax man laabaan dama ci xawul dara <laughs> dama ci daan lekki laax rek. def du fi nañ dem foofu. dama booy waaw. waaw Baye Cheikh ma ne ñi daan gore moom. ñu ngi gore ba tey. dëgg la. ñi jàppale seen ndey. ñu ngi jàppale seen ndey ba tey. ndax nag. Euh, man bokk naa ñi sama yaay teg ci euh, kër xam li mu muñal sama papa. ak la mu faxaar ak la mu daj ak la mu dégg ndax askanu Lebu dafa metti te boo fay sëy su mettee dañ naan la ndax doo jóg daaw soo goree toog rek da am doom ju la fay. moo ma fayee tey fii Sénégal yëpp toog di ma seetaan. Ah, waaw ndax loolu la ma digal. Mm. loolu la ma sant. Ah, gëmloo ma sama bopp ngir lam daj sama kër papa lool laa gëm tey lool laa riñaane ñëw ndakaaru toogee ko fi ba tey Baye Cheikh nga wane ma nga wettalu koo Buuba Nduur ak Njaga Nduur yu suma jigéen sama rakk da koo bëgg bay loox noonu la bëggee mbay gay fay léegi la naan maan neel yu suma jigéen ajaratu xajatu da koo bëgg bay loox ak mbay gay fay ku leen bëggul du nit sunu borom may tànn élément da leen a tànn te it nangu dafa jël cëru bañ nax lii neex ci xol yi yéen a koy def. dëgg la waaye xoolal sama papa garmi su waxee àdduna yëpp kontaan fan wi yàlla na gudd. Oh, ñu ngi may sible naan maan jataay bi dafa neex. tey ñu ne senegal kenn demut fen àdduna yëpp a ngi toog. xoolal borom Louga la wax ji sell na. baatin bee kopp. buñ ma seetloo waaye maa ngi deuxième. ah da ngaa bëgg a seet. wala nañu bàyyi ba deuxième heure bi. <laughs> non non dama nañu bàyyi ba deuxième heure nga seet. nañu ko bàyyi ba deuxième heure ba deuxième heure nga seet waaw. xoolal sekk ku ne xam na li yàlla def ci moom Abdou Faye laa tudd. Bourgéwal. xoolal Bourgéwal. puissant. puissance li yàlla def si moom Lamine Youssoupha jigéen Ndour. li. li yàlla def ci Diallo wax ji sell na xoolal li wax ji sell na Mamadou Mbaye Gueye ak maa Samba Gueye Louga xoolal li sama xarit puissance mi eh. xol bi sell na wax ji sell na wax ji rafet na tey ñu toog nii di yeddaat xale yi Baye Cheikh ñi gëmoon na nga gëm ba tey ñu ngi téye seen wax mm. du di xaar góor gu baax te réew mi fi nekk góor gu baax a fi new balaa new ma leen indi lu ma leen histoire bu ma kenn tiktok mbaa xam nga lu tax nañ ñu dimbali nañ ñu yërëm bëgg dafa foor xale yaa ngi ñàkk ay trois cent mille ci sëriñ xale yaa ngi jaay seeni oori yaay ci sëriñ dëgg la de xale yaa ngi joxe ay kayitu kër sax am fitam ci sëriñ xale dañu bëgg sëriñ ngir bëggante mhm. te bëggante dëgg la dafa foor Baye Cheikh ki nga miin ki nga toogandool ki nga waxandool mu ne la je t'aime nga ne ko I love you lu ko gën a foor nga xëy suba soo ko woowee mu dugal la liste noire jar oh. naa cardiaque jar naa dee jar na am goitre barki yontu yàlla Muhammad xale yi dañoo sonn te góor ñee leen ko teg góor ñi laa bëgg ñu yërëm xale yi am na fi ay ñoo xam ne ñuy gore nag ku ñu jàpp tee la dëgg la waay kon César bi mhm. Seri Kia Aidara mhm. bàyyi bàyyi fàllu yow ba nga jàppee ba tey bawoo soo nee waaw rek waaw la soo nee déet rek déet la benn parole rek nga am lee tax ñu suma jigéen xool la ba mu neex la teg la fii hmm. na la ñëpp xool bu la kenn pii sëñ Fallooy sa sëriñ <laughs> sama waa jaa ngi waaye baay damaa sañse te rafet te moo dooma def nii taali sëriñ Fallou bi rafet na <laughs> xoolal ni ma mel ci maquillage ndaye ma ko def Baye Cheikh TFM tey du yomb barke yontu yàlla mu xame eh. ndax danoo jël xale bi xew ci réew mi teg ko ci kanam waaye nag dinaa la wax dara te da nga may déglu attentivement mm-hmm. Baye man damaa déparé Tëngéej ñëw Ndakaaru mm-hmm. liggéey tax maa jóg may liggéey kenn xamuma nga wane ma soxna ma fay sal miy def social ci dëkk bi laa bëgg mu may ma caabi kër ma teg ci sama yaay dama ne dugu dugu waagaan moom laa bëgg mu may ma caabi kër ma teg fa sama yaay ndax damaa xew te Sénégal damaa sollicité te maa ngi def lu baax te ñi jommi seen bopp toj man maa koy seral oh. ñi am ay xat-xat naa koy seral réew mi maa ngi def ay xeetu sarax yu ne di rey ay nag di seddal muy sedd te du dërëmu kenn ah. Marème fay Sall mi def lu baax di dugg ci mënd bi nekk ci hôpitaux yi ku feebar mu sauvé la Baye Cheikh moom laa bëgg mbay gee yaa ngi toog ma ni waaw kooku nag moom loolu ci la dëkk wallaay ci la dëkk mësu cee jóg ñëwal jikkoog juddoo ko tooñ ñëwal Sénégal la ko ñor ñëwal réew mi rek ko ñor moo waral nag dégg na la mu may ma caabi kër waaw maa ngi toog maa nga ca piey ma nga ca jàppale jëkkëram. jërëjëf mm-hmm. mi ngi ci gaaraasi oto yi. jërëjëf Marème Faye. di xool kilifa yu sonn yi mu di leen dimbali. jërëjëf. mi ngi joxe biyay màkka yi mag ñi nga xam ne dem nañ ba xalaatuñu woon ni duñu ko amaan jërëjëf. mi ngi ci fonk doomu aadama. dëgg jàppale jëkkëram. dëgg la jëkkëram it tubaarkàlla macha allah. kenn du moom boole cell ak noppeeg liggéey réew mi ba toog yëggale ko fii mu yegg. Mm-hmm. kenn moom. Baye Cheikh. Mm-hmm. ñu delluwaat ci laabaan ji. ñëwal. cay bay. damaa mus yóbbu benn seet. Mm. seet bi ma yóbbu papaam ak ki nu ko may yaayam ñoo bokk ndey ak baay kër baayam la jóge dem kër bàjjanam dëgg la nu yendoo seetal ba ngoon nu jox ko jëkkër ji mm-hmm. ndeke jëkkër ji dañ ko takk xale xale bi nu bàyyi mbooro ñu ngi jóge woon dëkk bu ñuy wax guy jamaa bu nu ma seetaanee dinañ xam li ma wax guy jamaa jële ko guy jamaa yóbbu ko mbooro maa fa xam nu fanaan jëkkër ji fanaan ak moom ba asamaan set bàjjen bi ñëw fekk ko mu tëdd mun ko lu xew mun ko ah dara xewul de jëkkër ji daal di ko ni ah man tëdd na maa moom bàjjen bi daal di ñëw woo ma woo ñaari tàntaam yi ko indi woon hmm. daal di nuy dugal ci biir néeg bi daal ni fii jamono la maa jur sama ñaari doom dama leen di sagal duma ko yàq damay woo sabar yi ñu laabaan hmm. xale bi ni ko dooma laabaan mu daal ni damay laabaan ndekete woon na sabar yi ba sabar yi ñëw di jiin naka la sabar yi jiin rek xale bi ni tëlli ci biir néeg bi bu dee seetaan télé mi ngi may déglu de ni tëlli ci biir néeg bi woddu sarbet daal ni jakk si ndox ba wuti duus bay sangu ji ñu ni ko lu tax ngay def lii mu ni tëdduma eh. kenn duma laabaan te tëdduma ah kenn duma laabaan te tëdduma sans bàjjen nga yaag sans baay bokk ndey ak baay yaa takki woon sama yaay indi ko ca kër ga mu taawloo ma ca kër ga jëli ma sama kër baay indi la sa kër tëdduma dooma laa baal dem sangu ji ñëw sol tay takk boppam toog ci buntu néeg bi ñu delloo sabare nu jël xale bu góor ba yóbbu tiwaawoon yegg ñun dañ koo takk xala deux heures ci bëccëg bi nuy rosi añ yi la xale bi tëdd ah. ci la xale bi tëdd danoo indi jëkkër ji rek yóbbu ko ci kër xaritam mboole koog moom mu tëdd. ndeysaan. est que. xam nga kooku tey sàmm na deram setal na ndeyam. man daal jàllo man daal bu ma sañoon ñu delloo siwaat laa baax. dëgg la mi ngi am sax nag. daba booy nag dama koy condamné tuuti. ci xale yu góor yi. léegi xale yu góor yi fekkee tunu xale yu jigéen de xale yu jigéen yee fekk xale yu góor yi. Hmm. bukki bi dabee ponkal ca doxin wala lay reer a amatul koñ boo yegg fekk xale bu jigéen ba ñu teg ko ca koñ ba kenn kenn kenn naa danaa damm sa bañ kii fa waaye ma ko muy jaay tiitar bari tiitar jàppal waajangoog mhm. kooku foyewul boppam mhm. dama ko wax barki démb xale ya ma dëkkal ca kër ga ak sama doom naa ma xanaa nun ngay léebu koo dégg ñu naan ko système yow dangaa baax yaay sama gaayin yow nit ku baax nga bàyyil mhm. xale yu góor yi xale yu jigéen yi ñoo sonal xale yu góor yi xanaa xamoo nag ni xale bu góor bu àndee yow xam nga xale yi dana war a yeewu xale bu góor bi ànd ak yow di la foye bu takk jabar jotee mu takk xale bu ndaw waruñu leen ñoo war seen bopp ku wàcc sa ànd ànd bu yéeg mu toj mm-hmm. xale bu xale yu góor yi waratuñu xale yu jigéen yi xale yu jigéen yi ñoo war xale yu góor yi ñoo war seen bopp mm-hmm. xale bu jigéen day jëlub sëram takk ko jëlub selibam waddoo ko sekkur boppam am fu la mm-hmm. gi la may junni ñëw tey neex bu subaa bu ñëwee 4000 lay indi. bu ginnaaw subaa buy ñëw ñeent téeméer lay indi. ba ca topp du indi dara. bu ñëwee ni la maire bi yorul dara nga abal ma ko ba suba. jeex na dootoo laal dara. nga ne damaa war yaa war sa bopp. sëriñ boo dem ni ko sama far wi damaa war warul la yaa war sa bopp. wallahi azim xale bu jigéen bi wóodub sëram toog ci biir néegum ndeyam. xale bu góor du ko yab bay yegg ca moom. ba di ko toroxal ndaw day toog ci biir néegum ndeyam xam la mu bëgg wóodub sërëm seetum nawleem mu takk ko wéet ak moom xale bu jigéen war naa sàmm lu bari xamoo sa nijaay lay takk xamoo sa doom nijaay lay takk xamoo sa doomi bàjjana lay takk xamoo sa dëkkandoo lay takk mm-hmm. xamoo ko jóge ca àll baa lay takk mm-hmm. waaw wéet ak sam nawle ni xujj di ko xool mu di la xool mm-hmm. xale yu jigéen yi ñëpp ñoo ma xale yu góor yi defatul dara xale yu góor yi di ñoo toog ci seen i këri ndey léegi xale yu ji góor yi ñooy daw xale yu jigéen yi. xale yu jigéen yi war xale yu góor yi ah. <laughs> man jigéen ñi laa fi nekk. waaye waaye waaye njaabi. Mm-hmm. dafa am sentiment bu mag ñi doon ànd ak xale yu ndaw yi. Mm-hmm. te sentiment bi. Mm-hmm. Eh, dañ ko wàññi léegi def ko affaire u gërëyee. te jigéen boo ko jaayee affaire u gërëyee noot nga ko. sentiment. moo yor xale bu jigéen. yóbbu mu lekk. yóbbu mu naan. yóbbu mu solu mm-hmm. teg ci kanamu oto mm-hmm. tegal ko morso bu neex mm-hmm. dawalal ko ba buntu kër ndeyam nga gaare mu ne yaay sagu yaay ji daw ay waay man kii fan la ko jële nii kii kan la man de xa ah, doom yow loo tudd sax mu ne la man de diw laa tudd foo dëkk nga ne ko ah maa ngi dëkk Pikine ginnaaw raay wala maa ngi dëkk Sibsi wala maa ngi dëkk Wakinaan ah doom kuy sa yaay yow de baax nga li tax nga indi ko ba fii de boo doon keneen la dangay ngay jàdd ak moom nangam ak nangam yooyu da doon am. Hmm, dëgg mais léegi doo jaar buntu kër yaayam. léegi puissance puissance doo jaar buntu kër bàjjanam. fépp secteur bi xale bi dëkk doo fa jaar nii rek ngay def. nii rek di daw 140 dégg la comme yokk oto bi yokk son bi. foo am xarit nag di nga fa jaar wàcce wàcce verre bi na ko frisk loo ci xam. mu ne la noo kii du nit nangam ak nangam xale bi comme tàngal dëbb la au lieu sama classe gi ñu wàcce la ne la booy defal contrôle mais entourage bee lay jay entourage bee lay jay da nga koy rof tàngoor pompe ko bu demee da yàkkamti danaan balaa keneen di ko gis xaaral nag ma barkeelu ba pare balaa xale yi gën a yeewu xam nga xale yi nag bàyyi leen loolu xel yeewu loolu obstacle la gis nga ci diggante boobu yow da war ngaa dawal ci sixième sens. wa dawal sama ay ne kii kat c'est un profiteur ndax gars yi dañuy dañuy profité ci biir profité bi nag ci ngay rëcc mu ngi mel ni bëre bëre bëre modloo bu dee carax yow rocceekul. yaa may dégg boo rocceekoo. di nga def di nga def benn benn recul recul boobu nag ci ngay amee nag ci ngay dawale sama ay nag ne kii day màtte. xaaral ma réer boo ko songee bu màtt ma te jaan nag. mat rek ay fooram. amul benn foor bu dul mat waaye nag Baye Cheikh kañ lay dem Louga Moustapha Diop jàmbaar ji. laa <laughs> ilaaha illallaah kañ lay dem Louga Maas kañ lay dem Louga. namm naa ñoom Lamine loo de <laughs> ah. ah. waaye namm naa Dambéry si la de jërëlu si la. waaw il faut il faut il faut ñu dem Louga. namm naa namm naa naa namm naa Mor Ba. mbokk mi ay Thierno Ndom li mu daj ci ndox mi ren. Hmm. ah namm naa nag tubaarkàlla macha allah. namm nga jàmbaar namm naa jàmbaar namm naa Moussa Diop. Sophie Touré Seydou Ahmed Dramé namm naa leen ñu ngi ñëw. ñu ngi ñëw Louga. Ndiang Ba Mbodj ah. mu ngoog waaye nag Baye Cheikh. Uh-huh. mooy conduit. gaynde gi wax na ko barki dem nee na émission bi kër ngéwël la day am conduit bàyyi loo conduit ñu ngi si ginnaaw. conduit waaw mbay. waay dafa dee. conducteur ndeysaan puissance dafa dee. Euh. mais valeur moom du xeewi euh, El Hadj Mbaye Garmi. déedéet du fi jóg mukk mm-hmm. Baye Cheikh. ba keneen ñu wël bafta bi. Mm-hmm. xanaa nit ñay dem de. am mm-hmm. esprit de dépassement nekk ci yeneen waaye valeur moom du fi jóg. déedéet. jomm jomm. ak lii waruma ko def lii waruma lii bu ma ko defee bu ëllëgee nu yedd ma ku ma ci fekk xeeb ma du fi jóg bàyyi cheikh soo du bu sa toogoon na fi wax ko borom ñetti aana yi du fi jóg ba ila moo tax nit ñi ne ñu sàmboonte ak loolu waxtaan nag ak xale yi ndax dëgg-dëgg njaboot ku ko am mën nañ la jiitu waaye nag yaa leen di naxtaan. walaay gunge rek ak ñoom. yaay yi dañuy foog ñu am. esprit gunge rek waxtaan ak xale gunge rek. di leen taaj parce que xam nga ëtt da daan am ñu toog ci ëtt bi. ku ci nekk di wax ñuy jàng ca wax joojule amatul. Baye Cheikh ñi ngi tàbbi ci appartement yi. ak wéetaay ku ci nekk nekk sa téléphone. téléphone yi daal dëgg-dëgg mooy ëtt yi. walaay moo rey nit ñi whatsapp bi ak téléphone yi Mbaye Guèye. Hmm. xale jigéen daawul gunge xale bu góor. déedéet. ci àdduna. daawul gunge xale bu ji xale bu hmm. góor. ci buntu kër gi la buntu kër gi nga daan yem. Hmm. jox ko sa loxo. mu jox la loxoom dem yoonam. ku góor ki bu duggee ci kër gi yaay day toog ne le papa toog nii mag toog nii. ñu tegal ko mag. cousin toog nii ngeen toog nii. <laughs> ñëpp di gis kanamu ñëpp waaw ci kanamu ñëpp. <laughs> ma foofu moom. dara mënoo mënoo fa daal di nuyoo dem. Mhm. bu jigéen bi gunge nag yem ci buntu kër gi. ci buntu mhm. waaye tey xale bu jigéen bu tëdd ci kaw lalam ndeyam tëdd ca biirum néegam di nelaw. Oh. nga yor sa whatsapp. Mhm. di ca waxante say vocal. tëdd nga jóg sangu <laughs> daal di sol sa tubay dem waaw sa yaay yëg laa. yëgu téléphone yi rey na nit ñi de te nag euh, euh, euh, xale bu jigéen bi ànd xale bu góor bi ba mu di ko jëndal lu mu lekk hmm. waaye bukki bu dabee ponkal ca doxin wala waaw wallaay wallaay hmm. am na loo xam ne boo ko wutee doo ko ñàkk koy am waaye am na loo xam ne boo ko xaaree mu fekk si la hmm, dangay sàmm romb juróom benni góor ñu toog ñu ni ak am fulla kii ak am dignité sa jëkkër ne ca ca groupe ba toog ak am personnalité ñu ne kii ak a ñàkk faw ni mu amee ful la ni ma ko bëggee xale bu sàmm boppam a ngi bu diiñaa sa jëkkër nekk ca groupe ba hmm. ñëpp dem mu kawas benn moromam mais xale bi man dama bëggoon soxla ne ko takk boo ko takkee am jabar dëgg la de hmm. nga romb ci mbooloo ñu ni kii ni mu perdee ak oh. a bon kii te xamu am nga jëkkër ca groupe baam déet hmm. jigéen day sàmm boppam waaw ah, c'est respecté boppam am fulla ji am jëkkër nag ji sëy bataas ak ji tëddagul doon ndawayam mm. jigéen dana ñàkk jëkkër sax am fulla ba góor du ko yeb mm-hmm. Mm-hmm. ki am jëkkër ba ak janq bi rek ñoo yem valeur jigéen a koy wutal boppam maas looloo xew de. maas hmm. lu ndaw di def xale ci biir néeg hmm. lan la jànq di def xale bu jigéen ci biir néegu ndeyam ak ci biir néegu sëyam ak dëkk ba mu dëkk ak fa ko cosaan tegoon ba tey hmm. lan la ndaw di def ci réew lan la ndaw di def ci dëkk boo xam ne nii xale yu jigéen ñi ñu ngay bëgg a sànku lu delloosiwaat ko ni woon dañu ko yàllal ndax yàllu ndax bu ñu ko biralee dafa araam te bi nu ko biralee la xale yi wadd woon bi nu ko yaloo kenn gisatul man bëgg naa ngi firi ci loolu dëgg la dëgg la yàlla yàlla biral gi mooy biral gi rek mooy mooy rek la mbir bi ndax xam nga jullig tàkkusaan la ak timis ak gée hmm. tisbaar tàkkusaan la ñuy yellu timis ak gée dañ koy biral hmm. waaye biral googu mooy tax nit ñi am jomb di biral gi mooy tax ñi amoon am jomb jomb hmm. bëgg a jaar ci foofu xam ne ndaw nekk na loo xam ne si ku ko ñàkk ci sa àdduna mën na ni ñàkk nga lépp ndax euh, dara desul ci yow. Mhm. ndax wax nga ko léegi sa boroom kër bi ngay nekk ci biir néeg mu am lu mu la wax ba nga laaj ko lan moo tax mu wax la ko am na lu tax mu wax la ko. Mhm. li nga wax ni bukki euh, euh, njool bu ko bukki yabee ca ndoxin wala. Mhm. loolu mooy dëgg. parce que am na loo xam ne bu ko gisee ci yow nga mel na nga war a mel. amul leen lu mu la war a xase. ndax li am solo mooy jël na la ngay gone. waaye li mu war a fekk ci yow fekk na ko ci yow. kon macha allah sar sagar rek la la mën a def. Mhm. waaye bu fekkee ni la mu war a la mu war a fekk ci yow fekk ko ci yow. ca la yebel di amee. ca la ni ko kii booy mi waxee soxna si ci nga xam ne si la moom la lay xool di la jëppi walla xool di la meret te dugal nañ ko ci ba noppi muy sëy sëy yoo xam ni mbokk def na ko muy doomu nijaay doomu bàjjan wala ngeen ay doomi ndey am na nu ngeen war a jege loo xam si la ngay bañ lu ñaaw nga téye ko waaye la nga ci doon seet gisoo ko mooy kii ndakate jël na boppam saam ko ci àll ba noppi ñu jox ma ko nii da ngay mën ngaa mere sax ñu la ko jox jàpp ni ñoom xamoon na li xew dañ la ko jox rek fekk donc il faut ñi nag am jotu ndaw ñi kon mi ngi noonu il xale dañuy dem rek ndax boo toppee boo bu la tubaayee ci téléphone bi mhm. comme ni nga ko waxee contrôlé tuun mhm. xam nga li mu yàq bari na mhm. bari na couple yoo xam ne sax téléphone a ko yàq da ngay tëdd ak sa jabar fii sa jabar tëdd nga tëdd ku sa portable di kii kii ji kenn tollu sa morom. su ko defee macha allah na ngeen war a nekke euh, dund da ngeen war a dunde di nammante bu génnee mu nam namm la wala dara. bu man moo tax man samay soxna sax man. bu ma toogee moom ah, téléphone bi koy teg non téléphone bi da nga koy teg kenn du ko ah. koy teg man man ngay occupé waaye nag Baye Cheikh man li ma dem su ma xesee ba dem nag mm-hmm. bu la neexee nag nga jël sa téléphone mm-hmm. waaye tant maa ngi ci kër gi moom mm-hmm. occupé moom man jël téléphone ba teg ko ne kon xale yi bàyyi ñu jël seen téléphone comme ni mu ko waxee tëdd seen néeg ndax xale dañuy tëdd ñoom kese seen yaay tëddatuñu ak ñoom buñ tëddee yow kese yor sa whatsapp whatsapp message bi daa gaaw a dem allu na nga def foo toll mën la maa ngi place sàngam nga daal di couper sa téléphone jékki-jékki génn xëcc sa tubay dellu dem macha muy loolu joxe sa bopp ci àll bi fekk na nga war a def na la nga war na téye sa bopp defoo ko ndax yaa ngi jël sa bopp te ndayal la ko téléphone yi waaye ndayela ko tali bi mm. loolu mooy li nga xam si la moo njëkk a yàq askan wi kon képp koo xam ne si la yor nga sa doom mm. téléphone xëy na mën nga ko yor pour sam jàng wala sa euh, am am am ci xel ndax dafa bari ay données yu ci nekk maanaam mën na yokk xel ci xale mm-hmm. waaye am na loo xam si la war nga ko tere xale bi ba nga xam ni waru nekk occupation am mm. téléphone rek nekk ci moom fu chaque jour mi ngi kii kii di wax war nga ko laaj koy waxal foo jëm ak foo koy defe man loolu laa gëm moo tax nag xale yi mën a dellusiwaat xam leen xam ne leen war a am mooy seen bopp ñu téye ko sàmm seen bopp ba nga xam ne seen ëllëg ak si biir seen ndey danañ siggi seen bàyyi siggi waaye ñi topp ci ñoom di seen rakk siggi ndax ah, olof dafa ne tegale bu njëkk ba bu jubee bu ci topp jub kon ki kii mag war a woon xale yi fu yoon wu jaar mm-hmm. na jaar ci yoon woo xam ne xale bu fa jaar jaar fa moo tax ñu taasul leen ni leen caq ba sa maam takkoon mm-hmm. lan la tekki takkal sa ndey tey jii moom la takk caq baa ngi nii mm-hmm. kon caq boobee valeur la boo xam si ne nit ñi war nañ koo xam ba nga xam ne caq bi kenn waru ko yow muy dagg say loxo waay ma tontu la caq ba sa maam soloon suñu jox sa yaay moom la ñu ko takkal ni caq ba waay ana caq ba waay raw raw raw dencal su yàggee njariñ ndey du la may baay du la may ak raw bu yàggee njariñ xoolal ci juratu doom nga si ngom ko mas ci ko pétrole ko raw dafa jafe cey bécc bi góor ñi xew montal yi góor ñi xewal may yu njëkk yi góor ñi joxe di ko becc ci gone gu tuut tegu ci ñàkku raw xam ne gaañu jaru ko xam nga ku may waxal waaye laaj ma ku may waxa koy waxat <laughs> yéen sax ma borom suudu ay néew takku tàmmas sama tawa sa mbay jëy fay e eh, laaj ma ku may waxal kan la len ngay sëkk yaaya wa jaañ maali bay manga jaxeer bay manga laaj ma ku may waxal kumu moom Modou Mbaye Garmi doo laaj ku may waxal moo Adja Aminta koy waxal Marème Faye waxal waaw ah. Ah, lay bëgg a wax man soon fay soxna siiw mi lay bëgg a wax waaw waaw xam ni karawaas gi daan na leen jël bu bàkkuwul damuwul moo yéwén gore lu ko yàlla jox mu ah. jox ko ña ko moom mu dese ngor doon naa ma lu ko gaañi bañ a gàttul ñuwulul soxowul lu ko eh. gaañi bañ nëri fër marit na sa dal ku ci néew doole daw mareem fay narit na ee eh, moo mën a yet xam na fi mu koy dóor a xeex ew ah. gis nga Marème Faye Sall. ah. moo laaj ma lu tax. lu tax. mi ngi dimbali jigéen ñi dimbali njaboot ñi mi ngi dimbali ñi néew doole ñi mi ngi dimbali ñuy sox mi ngi dimbali ñu mel ne Aminata mi ngi teral géwal yi loolu la ma safe dama ni luugat luugat ndox taxu koo jóg baag ko nga waaw waaw. Marème Faye Sall oh. luugat na sax. koo jóg ba ngi koy selloo. xam nga lu ma neex ci moom moo mën a xeex. Ah? yor na yàq. Ah. xam na fi mu koy dóor moo mën a koy dimbali njëriñ dimbali baayoo. dimbali sa askan wi nga bokkal. ah dimbali géwél yi dootul génn ngel mbas mi xoolal def na lu rëy xam nga lu mu def. Ah. géwél yi génn tuñu ndax mbas mi mu jox leen jox leen dawul ne ngir mbas mi mu jox leen lu ñu naan jox leen lu ngir mbas mi moo ma reem xam nga lu ma neex ci yow da ngay def te boole woo ci wax lii nga ma sape ma ku ci ragal na néew doole daw narit na sa mbay jéey ah. ma reem xeex am na yàq xam na fi mu koy dóor moom mën a man ko awa jóobu ma yónni nee naa ko gërëm doxul ba yàqu kenn gisu ko fen mu ngi taral boppam mu ngi jàppale ca këram a ah, ma nga toog ca këram kenn gisu ko eh, xoola alal dalay mag alal saa bu ma seeg borom joxe am jafe alal dalay mag mareem waaye doo combine bëree eh, man mareem fay moo ma tëggal Marème Faye moo ma saf sama doom jee ma saf yaayu baab waa ma saf yaayu mbay ba mu baasee waaw waaw ah lay sama doom jaagore ñëwal Marème Faye sax la ma saf waay ee eh, set mi wangar ñi ko ah. ee eh, ku mu yónni dana dem ku mu woo wuy Marème moo man seeni ndey ñi daal dañuy soow waaye du seen morom. ay e, waay. ma ne du seen morom. noppi gër nii la yor noppi gel war Géejawaay maa bay sama doom jéema sax ah ñëwal kan kan bi bëre eh, moo mën seeni ndey ñëwal dañuy soow waaye du seen morom daa jàppale jëkkëram jëkkëram taxaw mu der ba ci mii maa ko wax yu ko géwél yi ngir ñi bi ay màkka yaa ngi daw waaye ma rem fay jàppale jëkkëram li ngeen yam ne waagaan moo gore xanaa xamoon ni réew mi fii mu toll ma rem fay sàll na fi loxoom mi ngi dëggu ci mi xuus di dem ah, basa Anda yaay booy eh waay Pape Cheikh bàyyi ma man daal ku ma neex lay wax bay jeey bay waay bàyyi ma bay jàpp waay Marème Faye laay wax Marème Faye laay wax Pape Cheikh ñëwal Marème Faye waay ah, c'est magnifique El <laughs> ku gis Aminta Gueye tey. Adja Aminta Gueye ak am ak forme bi. dafa mel ne tubaarkalla tubaarkalla ku dellu ci 18 ans. wallaay macha allah tubaarkalla. macha allah nu nu fekkee jamonoom. Hmm. su masaana tàbbi ci ci géew. Hmm. ba taxaw. dafa am yow loo yéeg. Hmm. waaye nag dafa am loo xam ne patrimoine la. Euh, ci patrimoine ci réew mi tubaarkàlla ci la bokk ci ci volet bi nga xam ne nii ci la ko yàlla dénk muy taasu bari na la ñu fi nekkaloon gunge leen jàppale leen suñuy tàbbee ci géew suñu gisul suñu gisul aminte gi xam naa ne gisuma xaar mbeng waaye xool ba sori na tey gisuma ndey mbeng waaye xo waaye xool ba sori na tey gisuma mbaaye ma mbokkal ndey waaye itam xool ba sori na tey ak ak aji gànn ndeysaan ba pare nag ñu amoon valeur nag xam nga mas naa la ko nekk lii aji gànna ñoom ñi dañu gore bu ñu masaan tàbbi ci géew alal taxu léeg-léeg géer tiit may leen lu rëy dañuy teg ba guddi ñu ëmb ko delloo la ilaha illallah xoolal yooyu valeur mhm. yooyu moo nekk ci ñoom mhm. kon macha allah macha allah tey nag bu bu bàyyee guddi gi ak ni guddi gi foore mhm. mu ñëw fekk suñu fii ci wëndeelu foog ñu ndokkal ko ñaanal ko yàlla bu tàbbi léegi nag ci Marème Faye Sall mu baax bi kenn moom dégg mm-hmm. bàyyi cheikh bëgg sa jëkkër ak jàppale ko bokkul. Mm-hmm. jëf te jëf te war a jëf itam am na ñoo xam ne war nañu jëf te jëfuñu. mais ki war a jëf te jëf. Mm. kooku am na jaaraam. dëgg la mm. bari na ñoo xam ne ñi le bàyyi cheikh seen courant ay carte la ñu ngi ci réew mi dañuy mm-hmm. jékki-jékki rek dëgg message bi tab bi. ñu ne la courant bi yokk nañu ko. ñu ne ko ko yokk ñu ne Marème Faye Sall moo ko yokk. bari na ñoo xam ne ñi le seen luyaas yi moo ko fay. bari na ñoo xam ne ñi lee wopp dam na leen bàyyi seex ñoo ñu moo fexe ba ñu wér kon kooku su jàppalee jëkkëram te yàlla dénku cër bii mu rëy ñu wax ko wax ju rëy jële laaj nañu delloo ko njukkal mmh. waaw waaw dëgg dëgg Elisabeth nekkoon na fi def na lu baax de Viviane na fi def na lu lu baax de. waaye bi mu yàlla yàlla guddal fanam. loolu mun nga ko mënta a bàyyi. Ah, ma jox billet Makka mm. Pape ma koy jox. da ngaa tudd Marème Faye Sall Jongu. Mm. ak Ndeye Teggi Fall. ndeysaan. mu jox ma billet Makka. ma ah. yóbboo ko sama taawu yaay Makka daaw. bi ma ko seetaanee ci télé bi. Mm-hmm. mu nekk ca Kaaba ga. di julli. ma daal di ko ne cay fay li ngeer yande waagaan yaa ngi ci kaaba gi waaye yaa ngi rii soog sa ujaaj yi nga xamut dëgg la billahi oh. ñu bari ñu ñëw màkk yaa leen indi màkk xamoo keroog ba may dem ca fa ñuy yóbboo nit ñi màkka Abdou Aziz Mbaye moo doon liir waaw dëgg la avion ya gaare oh. ñu toog ñépp ma dem fay di leen yóbbu màkka mu dem màkka nekk ak ñoom ñetti fani moonaa yendoog ñoom arafaat forandoo ay xeer sànneenoo jamra te xamul ujaaj yi mu yóbbu màkka te genn wàll gi mu yóbbu màkka bi ngi soog ñoom ci kaaba gi kenn du moom dëgg la mm. man day maa ko bëgg man <laughs> ñoo ko bëgg ko bëgg ko bëgg <laughs> ñoo ko <laughs> maa waxoon jëkkëram ca Géejawaay ba muy ubbi si marché njaareem mm. doon premier ministre président Macky maa ko ne woon ñaar bu nu dee xeex ka yorub yar mooy dóor ko yaruwut yu mi yaa yor yar bi mu sol mu sol garaam bu bu bu bu toog. Mm. dend ak ay dëmbooj. cey moo ma de. ma di ko xool ba càgg ni ko moo ma wax la ñaari baata mu ne ah, ma ne ko toogoo sax toogaayu première ministre toogaayu président nga toog. mu daal ni gindeet garde koram ba ni ko jëlal ma numéro wallaay wax na dëgg déglu géwal boole koog yar na. Mm. ak i teggin na. Ah, ak dimbali réew mi nag. Mm. ñun géwél yi dimbali nanu. Mm-hmm. Alaaji Mansour Mbaye jox na sunu wàll. Mm-hmm. sodaaf jox nañu sunu wàll. noonu mm-hmm. day jàppale noonu. jabaram jox nañu ci biyeey màkk yi puus ci mbënn mi di dimbali nit ñi. kon yàlla na leen yàlla may dëgg la yow ko da ngaa bàkk njaag tey njaag bakk bàkk ko ko bàkk mu bàkku dëgg la njaag waaw ah, da ngay gëj ci télé waxal la bàkk njaag waay xaal ma jaxatal sa maam tudd yaa bàkk njaag mm-hmm. sëñ bambal sa maam tudd yaa bàkk njaag mm-hmm. dama jaxatal sa yaay tudd faat seen jaxatal sa yaay tudd ey eh, yaa bàkk njaag ba si jaxati mu ba ki démb mm-hmm. njagaa jël ko yóbbu ko Touba te mu doon mas sara mooy sa nijaay kon dama ni ma leen fay sàllaani li ma neex koy wax te li ngeen bëgg laa koy wax. day dimbali nit ñi na ma dimbali. jeex na kon dégg na ko. dégg na ko day oto. dégg na ko man su ma ñibbi saa laay jël. dégg na ko te may ndayam. te awa joobu ma yónni ci mom nag ak baax. <laughs> awa ma yónni ci moom. Eh, eh. madame fay Sall. waaye may ma oto may ma jeex na kon message bi dem na. soo ma mayee oto man daal dama ñibbi. madame may ma woto. caafaas caafaas. madame may ma Thiafaas. <laughs> loo ko mbiñ bëre. yaa ngi arrêté. Thiafaas. waxal ca Fass. ñëwal. waaye Marème Marème ko waay. man damay dox ba Tëngéej. Marème Faye. man damay dox ba Pikine. ñëwal. waaye sama doom jéego rek. Marème Faye Sall ku mu àndal nga dem eh Marème Faye Sall ku mu àndal nga dem eh jeeg booboo ma saf bi dimbali jëkkëram jëkkëram jeeg booboo ma saf waxal ci Marème Faye mu way oto jërëjëf may oto jërëjëf mu ngoog voilà tey nag dafa tombé ak ñu tànn euh, euh, thème bi ngeen di gis ñu bind ko ci suufu écran bi euh, muy laban mm. dafa euh, euh, di lu ñu jël rek parmi valeur yi fi mag ñi bàyyi. Mm. mën nañu duggaat ci yeneen i mbir euh, yoo xamee ni mag ñi réglé nañu problème yëpp daanaka <coughs> joxuñu kenn conseil mais bëggoon nañu rek ngeen bàyyi xel. ci li nga xamee ni moo fi newoon. Mm. te waxuñu sax ñu def ko nanu ko daan defee. waaye bu ñu ci sukkandikoo rek mën na sàmm xale yi. Hmm. Euh, defe naa xale yi tey euh, ku ci nekk toog nga seetaan euh, ambiance ci caafaas waaye déglu ngeen bu baax. li ajaa Aminta ngay wax. Hmm. li nga xamee ni itam Adja Ndeye Safal wax na ko. Hmm. alerte bi nga xamee ni itam ajot daba booy wax na ko parce que moom mooy seen xarit moo taxoon ñu invité leen ñoom ñii ñëpp te kenn ku ci nekk émission nga. ñi ngeen gis ñu wax tey mën ngeen a góorlu Euh, ba euh, gën a siggil euh, seen ay waayjur c'est important donc tey loolu rek la ñu bëggoon ci programme bile une heure du matin léegi mu jot mm. jeudi bële passé nag dañoo bëggoon waxtaane Louga faf ñu bëtaloon ko ba tey mm. euh, tey itam ñu décidé waat ci direction bi ne dañuy def thème waxtaane laabaan loolu moo tax maas ba tey mm. euh, ñëwuñu ci Louga xam naa ñu Louga la indi tey sànq mm. <laughs> euh, puissance bu neex bee nga jàmb moom bëgg maa bi firkeloo ci man màggatu professionnel bi waaye ba tey garaawul loolu moo tax xuusuñu Louga waaye xam naa fi léegi jeudi prochain dinañu dugg Louga bu baax waaye lii dañu bëggoon daal mu des ci bopp xale yi ba ku ne mën cee profito donc ñu ngi ndokkeel bu baax Marème Ndiaye Gawlo mu bu jabaay Euh, di ko ziar xam naa ni fa mu nekk bég na. Mm. di bégal itam ki nga xam ni mooy Kamal Silla moom it suma rakk la moom it xam naa ni fa mu nekk kontaan na. Euh, Faben Diop itam euh, nee na caafaas bi seddal na xolam. <laughs> moom caafaas bi dama cee yëg naa ci ci taabal yi ku ma xam caafaas la ma xamee laataa may dem màkk lu ne def naa ko ci caafaas moo tax caafaas tey bi yënguma ci. Ndeye Safal xam na ni ma ni ma mel ci caafaas. Mm. donc caafaas sama yëf la ñoom pendoog ñëpp xam nañu ni ma mel ci caafaas jatulay Euh, ñoom ñëpp daal euh, defe naa tey kontaan nañu euh, ci li nga xam ni moo fi tukkee tey ci jotaay bi dinañu jeexal nag ak ay conseil mm. pour xale yi surtout. ndax lu nee ngi am ci li ngeen wax sànq muy WhatsApp muy réseaux sociaux yi xale yi léegi dañu gën a am liberté. par rapport ak nag ah par rapport ak bu njëkk ba nga xamee ne amuñu ko woon. Mm. te pour nga dimbali leen ci ay valeur day metti mm. parce que boo leen yaree ci biir kër gi. ñoom ñu ngi ci biti ndax seen ay téléphone portable mais nañu dem ak seen ay xel rek El Hadj Modou Mbaye Garmi Baye Cheikh xam nga toog ci kër gi taxul taxul nga nekk ci kër gi ndeysaan fi sa xel ne fa nga ne oh. te portable boo ko xasee yor mën nga nekk ci biir kër gi waaye da toog ci kër gi waaye newu ci kër gi mm-hmm. parce que la ngay envoyé ma nga ca biti mm-hmm. moo tax mu am solo waxtaan ak ñoom rek nag moom moom moo fi sës valeur yi moom du fi jóg baax du fi jóg te te boo baaxul boo dawalee tudd da koy réccu moo tax baax am solo kon xale yi na ñu gën a delloo ci seeni xel gën a yaraat seen bopp xam fi nu juddoo xam ni ñu juddoo xam ni ñu war a def ak lu ñu jom c'est très important mooy jomm jomm waaw mooy jomm jomm moo tax moo tax euh, moo tax moo euh, tax ndey yi ak baay yi surtout baay yi yaay yi nag sax ñoo war ñoo ñoo ci war a gën a xale yi ñoom waa parce xam nga bàyyi boo xam dafay xëy wuti mm. wala ma nga ma ngay ma ngay kii ndey ji nga xam ne moo si ci kër gi mm. am na lu bari nag moom la war mm-hmm. te ndey yi tamit nañuy bañ di nëbbal xale yi mm-hmm. léegi yaay yi dañuy nëbbal xale yi mm-hmm. dara dana xew ba këtt na jonn nga koy doog a yëg ci bi nga ko man ci bi nga ko ñàkkee bañ a yëg rek ci nga koy doog a yëg te loolu nag gënul na ci loo xam ne lii ñaari nawle lañu. dañuy séddante loolu cër. di ko teg ci yoon di yedd xale yi ku ci ne ñu lay ñu lay wax ne daal lii nga war a def lii nga jomm loolu na nekk daal lu am solo bàyyi Cheikh. mu ngoog ma Samb ñu ngi lay gërëm xam naa alxames ji dañu dellu siwaat bu ko defee ñu yaatal dugg Louga. waxtaanee Moustapha Diop ak président Abdou Diouf. waaw waaw Baye Djili Mbaye personnalité yi nga xamante ni ñoo fekk baax Louga. dañ koy préparé. Aminata Mbengue xaali. ajaratu Aminata Mbengue ba muy xaali ba muy mucc Louga yooyu. David euh, Diagne ñu ko développé. Euh, alxames bële di ñëw ñu ngi lay gërëm bu baax. Euh, waaye tey comme ne woon nañ la ñëwaatal buñ la waatoon ne la bu bul ñëw rek mun na mun na demee neneen donc il fallait que nga ñëw nga fekkee fekkee jotaay bi mm-hmm. ba jeudi incha allah dinañu dugg ci personnalité yi parce que loolu mënul ñàkk dañuy mm-hmm. dem ci ay thème dem ci ay personnalité yooyu yëpp rek ngir jàngale mm-hmm. ndaw ñi nga xamante ni ñooy seetaan wëndeelu bi ci télévision Futurs Médias ñu ngi lay gërëm bu baax sàmm waa jërëjëf Baye Cheikh ñu ngi lay fay

Euh, leel leel Malick ak Njoogu Malick bokk ndey ak baay waaw leel Malick moo jur kuli leel mu jur aale kuli mu jur Masambaali Masambaali moo jur Yadma Yadma moo jur mu ngoone Fall moo jur aram aram Njawar Fall moo jur Laman Dànd Laman Dànd buri xariñ jéeme oh. mu jur aram Njawar Fall leen jox Masamba Xuja Gay mu am ca Masaar aram Njawar Masaar aram Njawar moo jël Anta Diop am ca Mamar Gay Masaar Yaasin Gay Masaar Tenan Gay Masaar Ibra Gaye Massar ñu bokk ndey ak baay Yaasin Gaye Massar jur Kumba Dem mu jur Abdou Diouf Teneng Gaye Massar moo jur Saliou Ndoye moo jur euh, ki nga mooy Souley Ndoye ak Youssou ñu bokk waaw Saliou Ndoye jur Ndeye ak Maodo mhm. ak Bagan Ndoye Seynabou Touré ñu bokk ak euh, Saliou Ndeye mu jur Mañang Faye ancien maire ak Loo Faye mhm. macha allah di Louga ñu ñëw ci Moustapha Diop moom nga xam ne Louga la dëkk macha allah moom it di maire waaye def lu def lu jafe ca Louga ndax Louga ñu danoo yeew danoo judd rek nekk vert blanc borom fetu garab waaye Abdou Diouf am Moustapha Diop nag moo ñëw def def ko bees mano keroog bi ko président makk Sall ne bi nga nee ma investir ma Louga bu ma gañul nga dàq ma dama ne kii dafa am fit hmm. est-ce xam nga li nga wax booy te boobu directeur la mu ne ko waaw bindal décret ba nga xam ne si la dootuma ko mën a miim keroog bi muy jaale yaayam la ko wax bi muy jaale waa papaam répété waat na ko ma ne ko ma kii loolu la doon ndax gànkal mënu ma xaraja maam bi ñu ko jamee xëy suba defen daa faatu hmm. bi ñu ko yëkkati dani baa du ma tëdda ñaawul kooko jur soxna Fatma ci mujj sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma hmm. waaye kooko jur Sidi Rakki mu jur Basiru mu hmm. kon loolu la doon kon loolu lan fa lan lan doon bari ab bokk ak alaaj jili moomee ndax uh, mu dul soxna ñaan binta soxna ñaan Ablaye soxna ñaan aji ajaaloo macha allah di sama géer. ajaaloo macha allah bu baax lool. moom bokk ndeyam bokk ndeyu Amina Poté. mi ngi noonu moom kon la Diop Amina Poté noonu la gëmee noonu la gëmee yii euh, laabaan. mi ngi noonu jigéen day téye boppam <laughs> yenn saa yi ma ne ko waaye yow. waaw euh, kii kii génn ci télé bi ak ki nga doon bokkul de sénégalais xamuñu la de day ree ba dee. moom Amina Poté mbokk ndeyam Amina Lo. Euh, mi ngi noonu aji ajaaloo Amina Poté waaw yaayu Saliha. mi ngi noonu ajaaloo kon la mhm. kon la Diop a ko jur. Mhm. mi ngi noonu parce que émission ajaaloo déjà moo moo insisté. pour ñu pour ñu voilà pour ñu invité la dèjà voilà sama géer. moom it ku la bëgg la Adjalo dafa insister pour ñu inviter leen. ndeysaan mi ngi noonu borom agence de voyage bi Adjalo mi ngi noonu waaw. mu ngi noonu Assane Moram Assane Moram Penda maa am. moo jur Kolle Assane Moram Penda. ak gàncax la ma ak Lat Jooro bokk benn baay mhm. saaxawar soxna mbay leen jur mënul soxna ñaan saaxawar mhm. fat ma. Mhm. waaye mbër gu jaxatee ko jur mbokk ndeyam aminta loog fàdd loog caara. fa la bokk ñu bokk Serigne Louga la. lu ma ci xam Serigne Louga la. noonu la juddoo noonu la juddoo. Assane Moram Penda mi ngi noonu. noonu la juddoo ca Louga. Serigne Louga la. daa mënta ñaan mbër gu mbër gu jaxate mbër gu yàlla jur leen mbër gu yàlla ak mbaar yàlla ak maam saar yàlla muru bintaa leen jur binta faala ko jur anta seq xujo kumba ko jur mm. anta seq xujo kumba maam dafa war a ndaam wàcc ngiig am fa mur anta sekk ak sayar ak asta faal binta faala xujo kumba xujo kumba dem koo kër masamba nda ci am fa moo xujo kumba mu jël ndaag jo am ca masamba gàdd ndaag mu jël marema njàndam am ca mor njàndam mu jël aminta ñaan am ca soxna loo jóob ak seex jóob fàtte masamba soxna loo njox gaynde faat moom sëñ mbàkke soxna loo abdu fatra mm. kooku mooy aji loo noonu la juddoo noonu la bokkee basiru loo mu Moustapha Cissé loo bi nga xam ne sama géer gi dama naan ko Moustapha Cissé loo ñaar leen rek koy dàq mooy taw te bañ a tooy a tax Moustapha Cissé Lo bukki dong la bokkal borom kenn moomu ku du yàlla mu ngi noonu ba doon nag loo xam si ne ndax ñu ngi ko tudde Moustapha Cissé Moustapha Yacine Mbeng mi nga ni sàmba xëri sama am muy maami Moustapha Diop mu Idrissa Diop muy maami jëkkëru ndey tan ak ndooy muy ki nga xam si la mooy ah, Malick Cissé Talla Cissé Talla Cissé moomee Abdou Maram xon na ko jur Abdou Maram xon ak Aminta Maram xon na bokk ndey ak baay. Mhm. Aminta Maram xon Moustapha yaa Moussa Samba Xëri la seen baay tudd Samba Xëri Modou Soxna Gueye ko jur. Kodde ko jur Matar Xewe Sarr ay ah, Gumba Xewe Sarr ay Bran Njekk Peer borom ndënd yi ci paar ak bëri jàmm soo sa Njabe Njaay mi ci kab la. Amari Ngañ Aram Bakkar borom firi Ndata Mbooj. Amari Ngoñ Aram Bakkar borom ndaje bu neexee day tas. waaye bu naqaree day tas. lan la bokk mooy sam mooy Moustapha la bokk mooy Idrissa Diop ko jur Aminata ak baay Aminata Maram ak Soxna Ndey Sorang soxna Ndey Sorang lañ jox kan si Abdoulaat moom ca seexu na ak ki xam ne mooy soxna May macha bokk ko ak Serigne Mbuub Serigne Mbàkke Madina Mbuub kooku mu njëkk a yóbbu Makka nag muy 2014 muy Serigne Mbàkke Madina Mbuub moom ajur Baara Mbuub Baara Mbuub jur ko Soxna Lo jur ko Mor Marema jur ko waaye Mor Marema Amar Aw Maam Jóob jur ko Matar Xuja Dramé Balla Xuja Dramé Al Demba Senaba Gay mhm. Al Gay ak Njaay Demba maami Alaaji Malik ak mbërgu Demba maam Serigne Touba ak Njugo Demba maam Serigne Abdourahmane Lo ak Binta Sey maam maam Cerno am ca aram loo mu dem kër Sandeena wele am fa Dramane wele mu jël Farma Diop am ca Bakar Farma Diop ñu jox ko Mbota Faye moom ca Fawad wele ak Alpha Mayoro du fi xaj de boo toppee kii du ma dem tàggoo bi du xaj kon ah, kon maa ngi tàggoo kon maa ngi tàggoo bàyyi ko mu tàggoo kon maa ngi tàggoo ah damay tàggoo kon waaw kon mi ngi noonu kon mm-hmm. ah kon naa ko naa ko naa ko naa ko dëxañ li ci des mm-hmm. baal xames mm-hmm. ñu gën koo yaatal waaye kontaan nañu Pape Cheikh kontaan na nuyu nan laaj Kébé nuyul nga ko nuyu nan ñëpp ah, te lépp li duuf ci nag wi xajandoowul ci cin li dañuy seel yi lii ñu baxal ko lii ñu wékk ko rek kon nuyu nañ ñëpp gërëm nañu ñëpp sant nañ ñëpp waaye Pape Cheikh encore une fois di kontaan ci li nga ñu euh, yaatal fii macha allah ñu ñëw bokk yow plateau bi kontaan nañ ci gërëm nañ la gërëm Sénégal gépp di wax ni ñu ñaan yàlla nag yàlla def jàmm ci réew mi génn mbas mi ci réew mi ban delluwaat ci lañu xamoon ndax son nañ ci ŋaaw yi koo gis mu ngi mën la ko yor bëñ ndax ndax ndax ndax ndax son ñun surtout ñun géwal yi mi ngi mi ngi noonu noppi la te ab géwal boo ko ne noppi loolu lu muy waxati ndax ku dañ ni ko bu noppee lu muy def kon mi ngi noonu sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp di ziar di ñaanal Youssou Ndour bu baax yàlla sàmm te kàttanal ko te dëgëral ko ci barke bul génn fenn laa daal doon wax dès le départ yaa ngi bëgg a génn nuyu ñëpp <laughs> gërëm di nuyu Ibra sama mbokk hmm. Makke di nuyu ki nga xam ne mooy Oka sama géer gu nekk ci Italie macha allah gërëm nañ ñëpp nuyu nañ ñëpp di nuy Lat Diop hmm. Lat Diop di ko jaale moom it hmm. ndeysaan yaajoom la fi jóge barki dem di ku baax nday Sali Diop ñee macha allah mataar Ba nuyu nañ ñëpp di nuyu waat Moustapha Diop di nuyu suñu géer ñëpp Aliou Lo macha allah sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp Pape Cheikh xanaa rek mu ngi noonu. jërëjëf Samb kontaan nañu yow sama sama sama nijaay nga. waaw ayot Ndeye Assa Fall ñu ngi lay gërëm bu baax. ndax tey lii rek la bëggoon pour xale yi am lu ñu jëlee rek lu tuuti. Eh, ci eh, guddi gi eh, ba jël ab thème muy laabaan ci wëndeelu daañu tànnaat yeneen ci yi nga xam ne ni ñoo bokk ci aada ak cosaan bu Sénégal ñu ngi lay gërëm bu baax looy tàggoo sénégalais yi ñuy seetaan depuis sànq. ah man de xanaa kontaan rek ndax boo sante yàlla julli ci yonante bi. gërëm sa ñaari wayjur hmm. lii sax ak cant la ndax xalaat loo xam ne dinañ ko wax ba mu soppiwaat jamono ak cant la ndax nag euh, fi jamono toll lépp lu mën a wëlbatiwaat xale yi ba nu wëlbatikuwaat ci jom ak fulla ak fayda luñ ci mën dinañ ko def kon lii ak cant la ma di la sant nag bu baax di sant palaato bi ñu toogal di gërëm nag ku baax muy jee asu sare biram gi lekkoor caam dee nangu anta caam ak mbaalu anta caam mm. di ko sant bu baax di ko ñaanal tubaarkàlla di sant ummi sàll sama doom ja ca France ummi nag am na lu ma wax ah, garmi mm. nee na sarak waaw daa woy doomam mm. nee na Njaay di jooy ni ko woy na nu roqaya te woynu ma hmm. nee na nag la daa bëgg yow nga santaaneel Bamba Njaay woyam loolu muy nit ku baax di ñaan hmm. Seex Fàllu yàlla may ko jàmm di nuyu Awa Jóob sama doom ja saax weer faat ma mu dum saax faat ma ko dukkuli ngay ndaw Awa Karmel hmm. yàlla may ko jàmm amin Baay Cheikh di nuyu nit ñu baax ñu nu am ñépp nag ndax nag jamono bi dafa metti Mm-hmm. nu toog juróom benn weer génn nu fenn kon ñi lay fàttaliku te di la toppatoo te di la seet sant leen war na leen mm-hmm. dëgg la te kat sunu toogaay bii nu toog kat sunuy nit nag naar ba dañu woon na mën ay yuuxu <laughs> ay ñu ni ko wallaay Ahmed Babou naka lañ di waxe na mën ay mu ni bëgg a xam samay sopp ak samay bañ <laughs> waaye bi nu toogee na xàmme na suñuy sopp ak suñuy bañ mm-hmm. neex sunu rakk yu góor yi teral nanu sunu rakk yu jigéen yi teral na nanu su ma bëggee lim damay damay sori te ku teggul sa tur dangay mer waaye nag it nag noo ngi ñaan mbas mi yàlla teggi ko ci réew mi amiin amiin ndax bu ko fi teggiwul du nu mën a tëgg du nu mën a woy du nu mën a taasu du nu mën a dem ci misik bi mhm. te nag war na noo may li ñu santaane ñu toppatoo ko ndax mu génn ci réew mi génn àddina monde entier ndax bu génnul Sénégal du mën a tëgg àll bi du nu mën a woo tey metti na suñuy côté suñ la waxee rek dëgg la ñi ami kër di ca tëdd dépasse da leen di sonal ñi amatu kër di luye boole na nanu ñàkk fay luyaas ak amuñu lu ñu lu ñu dunde yaa ngi dégg dimbali lu nag waaye daa yàgg juróomi weer ku ko toog ci këru jàmbur fayoo ko da lay génne kon yal na nu yàlla may jàmm mu génn ci réew mi nun kat son nanu kat te it as gor rus naa ñaan woyu abi wa du yalwaan te rus naa ñaan dimbali ko moo la war mm-hmm. dimbali na nu nag waaye du lépp la nu mën a matal mm-hmm. kon feebar bi noo ngi ñaan yàlla mu génn ci réew mi nag abadan génn àddina monde entier ndax nag gor yu bari dee nañu ah nit ñaa ngi torox ci seeni biiri kër nit ñaa ngi am ay kayiti wiise lu yaas benn ci man te samay nit dimbali nañu ma nag ba sonn waaye nag am na loo xam ne boroom kër mënatu koo muñ mm. barki démb ca bëccëg le wiise ba ni salaamaaleykum ni ana nday astufaal nogoy sama caat ma sama sët ba nogoy sa mos oh. moo ma ni maam am na ku lay seet ma ni tëll yër ko ni ko salaamaaleykum mu ni maaleykum salaam yaay ndey astufaal ma ni ko waa ma yëgale ko ca saal ba mu toog mu daal di bind kayit ni ma la wit tey ba la wit delsi borom kër gi boo fayul da ngay dem tribunal ma ni ko yàlla bu ma fa dem oh. te loolu ma dal dal nañu bari mhm. te boo nëbbee sa jàngoro du faju mhm. te dara waralu ko nag lu dul lii nu dal mhm. kon nanu ko xeex mu génn ci réew mi nu mën a dellu ci suñuy sago te li ma dal man man na maa ñaan man maa toog nii ci tele bi wax mhm. waaye am na ñoo xam ne mënunoo ñaan mënunoo toog ci télé bi mhm. wax kon yal na nu yàlla dimbali ba mu génn ci sunum réew ba lii tegu ci suñu bopp teggiku ci barke Seydina Mohamed may sant borom kër gi di ko nuyu di ko ñaanal yàlla may ko jàmm di sant nag ñépp nag di la xamal nag ni suñu rakk yu góor yeeg suñu rakk yu jigéen ñi dimbali nan nu mhm. waa njaa bi dimbali nan ma mhm. ñépp dimbali nan ma waa kër alaaji Aale Njaay sama rakk ya dimbali nanu ma mhm. bu ma bëggee lim damay son nday sali Jóob jëng mi kii tudd nday faatu Njaay lu nu war a am indil nanu ko ndimbal yi nu jox yépp jot nanu ko waaye ndimbal yi nag mbay géey lépp am na foo xam ne du doy mm, doyul nag man day dogu naa ko ci barki Cheikh Modou Lamine Bara Mbacke bu nu ma seetaanee sans bagage ci buntu kër ga lañ koy teg. du am dëgg la loolu du am bu lu fu nu demee amuñu ngénte amuñu céet ci la nu yaakaar xëyoo góntoo dëgg la waay kon noo ngi ñaan yal na ko yàlla teggi amiin nun day bu nu ko yàlla tegg leenu sant sant ñépp nag barke Seydina Mohamed yal na nu yàlla may jàmm may nuyu plateau bi di ñaanal sama doom ji góor ji. Mhm. Samba du may yow Pape Cheikh jàlloo mhm. lépp yow la. Mhm. man de buñ ma dee wax njaabi yow yaa tax ñu naan ma meen njaabi ah? may sant nag waa njaabi. bëgg nanu ma fonk nanu ma sagal nanu ma teral nanu ma. réccuwuma lu ma leen deen wooyee. ma lu ma doon tudde meer njaabi. di gërëm sama nit ñu baax ñépp nag. di ñaanal sama yaay gudd fan ak wér. di ñaanal sama mag bu góor yàlla may ko jàmm may ko jàmm jàmmal ko daal amin amin ko yàlla may jàmm incha allah yàlla baax na jërëjëf Fall Adja Aminta Gueye ñu ngi lay gërëm bu baax masa tama ca kéer yi boo ma gërëmee ma nangu jërëjëf yëri samba borom suul nga toog sa mbokk gërëm Gueye seen kew yaay ba jaañ maali bay manga ak jaxeeri bay manga ak moo du may gërëmee ñu baax ngi sama doom ñu baax yi njaay bax rek mooy dëgg benn benn benn benn ku moom kër mën a tóor supporte benn locataire te fayu la mm-hmm. ñoom it am ñu ñu lekk seen kër la ñu yaakaar mm-hmm. maa ngi sant bu baax nag ñi may dimbali man mm-hmm. mbay jee maa ngi sant ñi may dimbali ci mel ni penn saaxu boobu laa sol barki démb yóbbu sent yi fële rajo bee ku ci mel ni xadi siis sama doom ji jigéen jooju ku ci mel ni mu xay di sekk nga ne El Hadj Alioune Seck kay bàyyam Fatou Gueye yaayam ak magam ñu naan Mati Seck ba ki dimbali laa yóbbu seen doom Céliba bi xam nga Céliba bi fu mu ne. Hmm. ca yoonu Fouta wa ca gannaaw euh, euh, yoonu yoonu nu ak son fa naar yi dëkk. Hmm. foofu laa jéggi dex man yóbbu seen doom mu sëy foofu la mbëggeel man a yem. Hmm. xale yooyu bàyyiwuñ ma benn yoon xiifu ma maruma waaye xam nga lu ma jaaxal. oto bu may demee moo ma jaaxal. incha allah di nga ko am yow Pape ko am bu jërëjëf aja Daba Boy may gërëm nag yéen sama borom suul sama sët bii. waaw di Assane mii. kure janjur sama doom daa dee ogo jaañ. Oh, sama xarit. bàyyi maag ay doomam. bàyyi maag sama doom ji. bàyyi maag rakkam jee muy dun jaay mi nga xam ni aadee ko jur aad mi ko jur maam la jaay mi kii Ibou Naar ko jur ak kure jaañ sama doom sama doom ji sama sët bàyyiwu ma fen dana ma boot sax ni ma kaay ma jàllale la mhm. moom Assane Fall mii mhm. dana ma boot ci gannaaw ni ma kaay ma jàllale la su ma agsee fii moo tax maa ngi ñaan yàlla ak ma yontu yàlla gi rek laa gëm teral leen yàlla teral ak njaabi sama sët bi nga xam ne fi ma waxee lu mu jóg kenn du ma tudd maa bëggoon tey ngeen ma kon léegi nag xeex ak moom mu ñibbi. waaw ma yaayam maa ko jur xalifaal xalifaal yaayam maa ko jur. kon yal na yàlla guddal sa fan. ma waxal ak man. yàlla ma la mere <laughs> dama laa bëgg. yàlla bu ma la <laughs> ba beneen yoon xam naa incha sant rek borom kër gi Youssou Ndour. Mm-hmm. ndax lii la bàyyi. Mm-hmm. moo jàppale mo la jàppale. ay di sant ay rakkam ñoom mm-hmm. Bouba Ndour ak Njaga mm-hmm. defar ba mu baax rek moo leen tax a jóg mm-hmm. maa ngi kontaan di sant yàlla télé bi na dem ci kaw ca kanam àdduna yëpp xam ko àdduna yëpp dégg ko mu yegg fu sore sore amiin amiin ci kàttanu Serigne Fallou ak Serigne Babacar amiin bàyyi bég naa yàlla na yàlla def ci réew mi jàmm rendez-vous ci TFM ak Adjot Daba Boy puissance ba jeudi prochain insha allah bàyyi maa ngi lay ñaanal yàlla ni la sunu borom sampee àggali yéenam ci yow yàlla la fa la cat. du ko ñaanal suma mag yi nee naa ko su ma la gisee yuusu laa gis. Hmm. ma toogee ak yow rek dama lay dànd. Hmm. ndax yuusu maa jigéen. mbay yàlla na la yàlla fa cat. may la amiin amiin Mamadou Mbaye Garmi pare. yàlla nga gudd fan te wér. magu jàmbur sama nijaay suma xarit. maas yow maag yow benn lañu dañuy gëj a gise rek. Hmm. waaye benn lañu. yàlla la yàlla fal cat. ñoo waroon ànd ca laat belel. Touba mu nay Touré mais dama asma moo tax dew ma mbay Touré. xaritu gar mi benn bi ci topp nag maa ngi gërëm waa Louga yëpp ñu toogoon doon xaar. rakkam moo moo moo mooy Amérique mooy kin naan premier africain. bii jàngale États-Unis mm. Baye Cheikh. Mm. macha allah ndaw soosu bu sa jàng. boobu muy wax mbay Ndeye Touré moom moo ko. Ndeye Touré waaw. moo raal belal bokk ndey ak baay. bokk ndey moom mooy mooy jàngale États-Unis ñu naan mm. premier africain. muy jàngale école bii. macha allah temps yëpp seen seen bi ñoo koy. wane mi ngi noonu ah, waaw bu sa jàng moom sa xarit. Adja Sène. Mbaye. seen ñu ko fàttali. sa doom sa xarit wallaay dafa bëgg wëndeelu. day yónnee di woote di wax lu lu jàpp leen émission bi. bàyyi waa Louga yi nag wax dëgg yàlla ñi ngi woote. di bëgg lool. di la ñaanal yàlla émission bi gën a law. amiin ndax nag. sama rakk ji Modou Mbacke Seck. ak Mbène sekk rakkam. ñu ngi toog di seetaan wëndeelu waa Louga yëpp ñu ngi jooy njang baa mbooj. <laughs> ah. njang baa ak ay rakkam. Baba Galle tubaarkàlla macha allah. ak Daam Paris. Sega Ndiaye. xale yooyu yëpp Xaadim si Zidane maamam xam nga ne xam nga ne barale la ware. barale la ware. barale Ndiaye xale yooyu barale Ndiaye ñooñu. bare nañu toog di xaar émission bi. lu ko giñ dégg rek. ndeysaan ak Baye Fall bi. maam Cheikh. maam Cheikh si la euh, mu alaaji Mbaye Moussa si la ak laat. mi nga taxawal barki dem ñu wax ci Pape Cheikh lu rafet nag. xale yu bëgg la lool Baye Cheikh. émission bi daal bàyyi nee na lu ngeen a yokkee. tubaarkàlla macha allah muy di yokk heure bi am na ñu ne nag dañ ko def samedi man leen def leen ndànk kooku ci loxoy Baye Cheikh la nekk mooy conduit bi du soo ko wax yaa may dégg bu kenn dugg ci loolu waaw dañ bàyyi bàyyi bu kii yaa ngi dégg yow daal jàll nga ko waaw jàll naa message bi di nuyu nag sama yaay yàlla na fi yàgg te wér Ousmane Nawel Dieng Baye Seex yàlla na gudd fanti wér ni mu bëggee président Macky Sall dafa ëpp mm-hmm. Ousmane Nawel Dieng dafa bëgg président Macky Sall ba gëmeewu ko di ko liggéey liggéey bu rafet bëgg kaw la bëgg kaw la mm-hmm. ñoom ak ñoom tubaarkàlla macha allah ah, ah. su ma limee daal damay da ngay juum man daal damay juum <laughs> waaw waaw nuyu ñëpp rek gërëm ñëpp merci euh, Mbaye Dieye ñu ngi lay gërëm bu baax euh, ba jeudi prochain xam naa ni muy li nga sol li ma sol dañ ciy gërëm bu baax Mame Modou Joxaane Mame Modou euh, ah, yaa ngi dem jaabi nag de man man ñaw ah. Mame Modou ñu joxe numéro bi en peut-être Pape Samba di leen ko bindal ci écran bi mhm. donc Mame Modou 77 543 21 84 77 543 21 84. Euh, pour ñi nga xamante ni ñoo bëgg ci euh, costume africain yi mën ngeen euh, mën na bazin mën na costume africain donc Mamadou Diokhane ñu ngi koy gërëm bu baax. Mbaye Dieye moo mën ñawal ñawal la. moo def ci loolu ñu gërëm la ci waaw. ba jeudi prochain incha allah. mais ma gis li nga sol rafet lool. trop. sama ah, ma ko la def nii. walaay walaay may la Mamadou ma def nii léegi la jóge suma kër. dafa jóge suma kër rek. ma livré rek. waaw def la lii. maa ngi jot lu ne ci message. lu ne ñu ma koy bind. ci mhm. tenue bi. Mhm. mais muy trois pièces. waaw ah, trois pièces xam nga kii da nga koy summi. c'est très kii danga koy summi. fu ah. teet nga koy def. Ah, wallaay summi ko. dese ci biir dese bi ci biir. manche courte. seen bi ma sol it manche la ci biir waaw waaw noonu la. sama rakk yi bàyyi xam nga comme na ñawkat yi dañu gaaw ci copier. waaw euh, waaw. ñaw sol naa ñoom nit ñëw ne ma. complètement. Euh, complètement. mën naa la photo ma ne ko déedéet. doo ma photo mm-hmm. boo bëggee ma jox la numéro téléphone nga dem ci ki ma ñëwal mu ah. ñawal muy ful la ah. waaw c'est pas bien voilà complètement complètement donc Baye ah, mm-hmm. sant ñëpp mm-hmm. ñi toog seen kër yi wallaay euh, ci salon yëpp partout dans le monde parce que TFM mm. mooy miroir la euh, ku ci nekk ñi ngi lay joxaat loxo di ñaan suñu borom mu may ñu fekk ak tal ba ñu ñëwaat fi beneen alxemes kontaan nag ci waxtaan wi thème wi Euh, mu nekk thème bu sensible bu am maanaam ñu cof ci laabaan rek waaw ah. cof ci laabaan ah. dañ ci cof rek ci cof rek jëluñu sax lépp déedéet waaw parce que eh, di wax xale yi tamit ñu lu ñu gën a euh, téye seen bopp mhm. nan ko def baax na góor ñi tamit mm. euh, bu nee góor rek laal nga ñëpp jàppale jigéen nanu yërëm mm, yërëm leen parce que mm. jigéen mën nga wax ak moom sax ba waaw ba moom ko ci cim xel mm-hmm. ba dara desul la dul dem nga jéggal waaw nga nga retourné loolu tiyaaba la la sunu borom di bindal parce que tamit ku sañoon euh, ni nga bëggee sa sa sa sa deret ah kenn ku ci nekk téye ndawam. Mhm. noonu nga ko war a bëgg mhm. bëggalee ñëpp. téye yi rek waaw xale yi. wax fa dëgg yàlla guddi na xale yi tëdd nañu. waaw téye rek vraiment. émission bi. te ngeen sigil euh, seen waajur yi c'est important. waaw c'est important. Mm. Euh, émission bi moom dina jaaraat ñetti fan xale yi dinañ ci mën jàngaat. bu baax nit dina yor téléphone am dëgg la ndeyam tëdd di nelaw. Mm. mu nekk ci téléphone am waaye teewul. Mm. téye boppam mm-hmm. dëgg la. si si am na seen waajur yi waaw am na boo gisee Baye Cheikh mm. thème bi am sens mm-hmm. laabaan bu njëkk ci quartier mm-hmm. mais danaan ñaax mm-hmm. danaan ñaax danaan danaan tax ku ne bon dëgg na nag léegi dañu moderniser lépp lune de miel patiti patata mais bi gën a neex nag mooy wax fa dëgg yàlla sa waajur bu góor taxaw sa waajur bu jigéen taxaw gis ni sa jëkkër kontaan na du la mën a xas suba ah woy oui oui. Mm-hmm. et eh, ngi am ci kër yi ba léegi man ku ma mayee sama kër lan la tuusalee juróom-ñaari gale waaw parce que damay bëgg suma jàkkaarlook sa boroom kër xam ni kat ki ma ko jox. waaw et eh, donc ñu gërëm ñëpp sant ñëpp ku na faal ajaratu ku na faal soppee Seydina Mohamed. Adja ku na faal moom itamit. xam naa ne mu ngi seetaan lii. nabiyen bi nabiyen bu mag bi nga xam ni moom itamit. bëgg na TFM lool lool daf ma mës a wax ne ma oh, xarit la ba ngeen di ñëw yeen mm. di répété. boobu mm. riche ñaam yi. Mm. le grand danseur mi ngi am 10 ans ñu war a ànd ak moom. def kër Youssou bi nekk Nduxura. wallaay mm-hmm. mu ne ma xale yi daan taxaw ci tefes gi. bu ngeen jëlee pose mm-hmm. ñu leen di lakkal tuufa. Mm-hmm. tuufa bu mag bi. waaw mu ne man ci laa bokkoon. Mm-hmm. xoolal loolu. ma xool ko ma ni ko non non non. mi ngi ma ko wax ci anniversaire Viviane. Mm-hmm. fële eh, wax ma ko ma ni ko ah. Mm-hmm. mu ne ma naw naa la lool mbay jéey. fonk naa la lool lool lool. ma ni ko ma ni tamit naw naa la fonk naa la lool. yàllaa ngi doog a dogal suñu daje ci bés boobu mais mu nekk nit ku baax na di jàppale doomu aadama yépp moom i tamit. ajaaku na donc moom itamit ñu koy jox wàcc waayam. te xam ni. wëndeelu daal ah mi ngi wër. Mhm. di wëndeelu. Mhm. yàlla nu yàlla may fekk ak. wëndeelu mbay mbay sama yaay aji daaro sama mhm. yaay aji ndey caam. yàlla na leen fi yàlla bàyyi ba ci kanam. amiin ba ci kanam moo duggee héritage sama mm-hmm. mm-hmm. naa la jël réunion ak ah, moom Mamadou kii réunion ak moom ak moom du ñàkk yaay Mamadou Joxaane moom réunion ak moom du ñàkk ak Sam Couture waaw ah, ok Mamadou Lamine Ndiaye sama rakk ji yow suñu réunion du ñàkk sama rakk yooyu yàlla na yàlla fal moom sama réunion moom du ñàkk. non bàyyi yow. tudd ngeen papaam léegi ci palaato bi muy. Alaaji Ndongolo ajaaloo ma ñu jox laat gisee. dani ma meer ma ne ko amul ma suba du yomb sama géwélu juddu bi. Oh. bëgguma taasu bëgguma woy yow laa bëgg. maa ngi koy nuyu bu baax. di ko saga sargal di ko ñaanal di ñaanal nag. Mm. ah guy mbind. Mm. ndax man Kër Sëñ Bara laa dëkk. macha jeex na kon mu ngoog eh, El Hadj Mbaye Gar ñu gërëm la mm. eh, ñu tàggoo. Euh, ndokkeel euh, ay Thiam Aïdounet da 12 nee na mm, thème bi am na solo à rediffuser plusieurs fois oui nañ ko rediffuser bu ko defee xale yi gën ci bàyyi xel puisque thème bi dañ ci cof rek mais defe naa luy euh, lu leen di yee la sànq bi ñu demee ci caafaas bi ambiance ngeen ci yéen xale yi mais quand même li ñu bëgg mooy ngin diglu voilà diglu ngeen bu baax a baax a baax a baax te ngeen dugal seen bopp ñun peut-être suñu wàll wëy na waaye yéen ngi yéen ngeen ngeen ngeen gën a góorgóorlu <laughs> euh, dimbali seen euh, jur yi Papa Samba gisee mm. itam ñu ngi koy ndokkeel bu baax ak euh, sunu xarit yëpp El mm. ba alxames incha allah xanaa rek di am mbégte Baye Cheikh di joxe rek ñaari njaal mm. benn bi jóg ci sunu baay bu baax bi di Alaaji Ndaama Fall mm-hmm. nga xam ne addina yëpp ñoo ko nawoon nawloo ko ndax jikkoom soo ko masaana séen rek danga koy sopp waaye boo ko kotuwaayee da koy bëgg ba pare mu yar njabootam teg leen ci lislaam ak diini xanaa bu nu jëlee njaal mi teg ko ci loxo dan mu teg ko ci loxo Mourou Fall doy na ak maam Ami Dieng mi nga xam ne moom laa bokkaloon classe waaw waaw di wax ne Baye Cheikh di ko jàll nag soxnaam yépp di ko jàll Mamadou njaay mi nga xam ne moom a ñawal ndax moo ko yar doomu nijaay doomu yëkk lañu ak wëllu ba pare mu bëggoon ko lool góor gi sopp ko def ko def ko doomu ruwam kon saa maa ngi lay jàll sa doomu nijaay ju baax jooju nga xam ne nii moom nga ñàkk mhm. ndax moo def bii moo fi génn mbay rafet na de waaw waaw gone ñawu bàyyi seex mhm. di ndokkeel nag bu baax a baax xadi saar vacances vertes moom tam tubaarkàlla moo jënd mbaseñ bi mbaxane bi nekk ci bopp bi laamu boutique moo ko moo ko ci teg <laughs> eh yi bay seex ku ñu ku ñu naan ku ñu naan baara chaussure moo ko moo moo moo ko ci def moo ko ci def. baara chaussure baara chaussure waaw macha allah ah, waaw waaw croco di wax ne bay seex uh-huh. di jaale nag bay bu baax. Uh-huh. koo xam ne kii askanu ngéwél yëpp def ko ñàkk mbay gay tudd ko léegi mm-hmm. ci bayu am valeur ci la bokkoon ndeysaan muy Madd Fall Tamsir Fall Tamsir Tamsir bayu Aziz Fall waaw waaw bu nu jëlee njaal mi teg ko ci loxo naar mbay doy na Aziz moom la ma jàngandool wallahi bu nu jëlee njaal mi te ko ca laxala mi naar tafsir xayaar doy na waaye kooku lu mas a xew ci dig digal boobule moo koy foife te dara lu ñaaw homme de culture wallahi maire bu fa ñëw moom nga àndal. ba pare mu yiw lool. ma jóg faal civilisé mën a sañse bëgg lu baax. ak Aziz. daan ànd ak nag bàcc pen moom itam ñàkk nañ ko bu yàggul. bàcc pen eh, mbay boo namee ñu ñu baax ñu dëkk suuf ngay fóon. wallaay billaay la zila ila huwa di ko jaal waa Medina yëpp di ko jaal tamit Bamba Fall. Mm. ndax daf ko bëggoon lool sopp waaw bëggoon waaw lool. mu di ko côtoyé nekk dend dend ak moom mbay ji. Bamba Fall le maire way di wax daal réew maa ngi noonu nag sant yàlla rek ak julli ci bi di lax nag Baye Cheikh mm-hmm. ñu ngi lay ñaanal yàlla bu baax. Mhm. jërëjëf Mbaye bég nañ kontaan nañ ndax réew mi nekk dafa am benn benn benn benn benn benn touche boo ci joué te touche bi joué ko amul njariñ ñu jëfal na ko ba nga kontaan rek am njariñ mhm. mooy tax yëpp yëpp dem te yaa ngi ci fekke woo dara mu ñaaw ku fi am cër jox nga ko mhm. man Amadou surtout nag Amadou Baye Garami baat bi ma la xooloon keroog ba noo dem Saint-Louis addinaa may dégg te man sama wax je pèse bien mes mots dañu tàbbi ci dañu tàbbi ci ndar man retardataire la may mujjee ñëw saa su ne ma ñëw fekk ñu séddale néeg yépp moom ñu jox ko suite mu ne suite bi du ma ci fanaan Abdou Bay Garmi laay jox caabi baay Cheikh boobu léegi delloo ginnaaw te sama maam ne Amadou Bay Garmi lépp ci net rek lay mucc looy jëf na rafet jëfoo dara lu ñaaw ñu ngi lay ñaanal yàlla guddal sa fan sàmb la yokku la yokku sa sutur te jàmmal la jërëjëf Mbaye ndax da nga nu da ndax jàmm jo da nu ko may mm. waaw kon yàlla na yàlla guddal sa fan loolu rek laay laay nuyoo di ndokkeel nag Moustapha Diop mu baax mi mm. Fari Ndiaye mu baax mi nga xam ne mooy secrétaire am lantinoor lu téye diw Fari Mariam Ndiaye mu baax di ko ñaanal yàlla guddal fanam ci sàmm bés bu ñu delloo ci Louga luy cëru Moustapha Diop danañ ko ko jox na nañu ko nag di doo ko def aji sàmm mm. ndax njañ sunu mbokk mu baax ma dafa jël doomam ñu war a tàbb samedi ca bés ba waaw dëgg nee nañu sax pap aan moom mooy ci bàyyi ci la bo waaye waaye sama rasoir la yóbbaale su may dem ca takk pour wat oo bi waaw wat oo bi rek naa la jàppale yaay ni jaay ja waaw loolu foor na waaw Ngoy Fall waaw. mi ngi lay jox sa waat lay. bi. mu ak Sia yaayu xaadim loo. Jamil Karo. mu ak Sia Touré moom daat la dëkk mu sama papa Askia. kon mbokk yi. ñu ngi leen di gërëm euh, bi euh, alxames lay doon bële euh, ci beneen wëndeelu. dey masaada yi benn naar ak may sa faalu benn ko du jëngu faalu benn faalu ba yaasin ali baaba ak wari jiine kañ ci ni kuwa deelu dinga maami naan